loolu nag ah. Sidi Lamine Niass yow tam ngay ah, buum ak lu mu doon di buum mi hmm. Sidi dàq la nga yóbbu ko tribunal waaw waaw loolu am na non mais avant boobu moom sax da daan dàqaate non mosuma dàqaate nag non mais am na élément yu bi génn ñu bëri ne yàlla waaw kaa ma xam nga nag man femme d'état laa mm-hmm. li tax may xuloog ñu bari ne xam le boox le baaxul ndax obligation de réserve mm-hmm. du ne corporation moo la koy jox yaa koy jox sa bopp mm-hmm. doo xam lépp wax lépp man bàmmeel laa Euh, te euh, dama am responsabilité xam nga Sidy Lamine Niass bu rombee ñëpp man man wal fajër à l'époque benn nit laa fa magoon mi Pape Cheikh Sylla laa mhm. moom laa magee woon deux ans ñëpp nekk ñëpp samay morom papa la ñoo samay morom nangam donc Sidy Lamine Niass bu rombee ñoo ñëpp ñëw tàggat ma forme ma euh, jël ma def ma li ma defoon ma nangu responsabilité parce que man lu ma lu ma lu ma dul assumer du ma ko nangu ma nangu responsabilité boobu mais dàq processus la dàq yombul de processus la. c'est tout un processus. nga porté ko plainte pour licenciement abusif. no euh, non damay ñëw d'abord ci bi ci Big Taf. Mhm. man euh, dama directrice laa woon mais dama am une autorité au-dessus de moi. lépp lu may dafa am kuy valider. Mhm. Euh, donc bu kenn bëggee def je valide. donc du man maa jóg institut personnel mu jóg man mu neex ma nii rek. hiérarchie la quoi waa dafa am fu muy jaar mais doo doo tëb tëb nii rek Big Taf. xool nga ko neex ko dàq mais DJ non dàqu ko. non daa dégg lu ma la wax. Kouthia man damay endossé. dàqulu quoi non attends dàqulu mooy lan. cest à yow ci li li ngeen yow am nga ci part de responsabilité. sans part de responsabilité lan la comme toi tu es bien informé. non c'est-à-dire bu ñu moom fi eh, laajte bi ngay quitté mu laaj la. non du ma laaj man du ma ko tontu man. toogal di xool la ci sa émission dégg nga. du ma tontu say laaj mais dama ne la. Kouthia génn fi taxaw bi nga mm. ñëwee mu expliquer la même chose. Mm. expliquer la même chose. donc mm. dañuy wax tout le temps. dàqul dàqul waaw non yaa ngi dàqul mais xanaa wax nañu lan la wax nañu ay tudd leen dàqul mais toujours ah non non non non non yaa ngi toog kay motif dañ bëgg wax non déedéet xaaral déedéet xaaral xam nga parfois ba dañuy dañuy wax ni bu ku ñëpp tufli nga tooy waaw bu ñëpp taxee ne Aïssatou am na ci part de responsabilité mm. même bu dul lépp am nga ci lu ndaw waaw léegi man xam nga lu ndaw loolu laa lay laaj am na wala amul déjà waaw déedéet xaaral big taf sa yaay laa nag yow kii kii magam laa yi ma yow sa yaay laa <laughs> ah, xool da ngeen invité naanaan de <laughs> li nga def maa la ko dàq fuuf d'accord naa piano piano. d'accord allez léegi. Mm-hmm. Eh, yow. xoolal léeg. Euh, buñ la waxee <laughs> ba defu ndànk yow fii laa ñëw toog ñëw toog nii moom moom bijou mii. Mm-hmm. allez léegi. Mm-hmm. Euh, <clears throat> xam nga il faut quand même bon on rigole là mais mais il faut il faut il faut quand même ñu wax les choses comme comme elles sont xam nga c'est facile c'est normal. man fii damay dégg ay ni chaque jour ma dégg fi 2 euh, ñu accusé. Euh, Abdoul ak Cissy ak ak euh, est-ce que mos dégg man Abdoul mu tontu non. man mii sax euh, <laughs> damay dégg kooku mun fi mënul ñàkk. parce que liggéey moo mel noonu administration moo mel noonu. Mm-hmm. xam nga pourquoi bu ñu la joxee responsabilité ñu nangu ko ñu ni déchargé de ses fonctions dafa lourd. responsabilité moi je dis tout le temps. Mm-hmm. que bu weesoo salaire bu yokk bi. Mm-hmm. amul lu ci neex amu ci parce que bu su baaxee ñu ne ñeneen ñi la. su bonee ñu ne yow la te mënoo taxaw fu ne ne du man te na ngay nangu na assumer parce que ñi nga wax ñoo ñëpp euh, du ma taxaw fii nag di génneel ay dossier waaye ñoom en âme et conscience ah bu leen ay sotu parce que awma ak ñoom benn problème personnel ñoom benn problème personnel ñoom en âme et conscience li ñu def ba am parce que amuñoo man problème du man maay daakaate amuñu ak man problème ñoom en âme et conscience xam nañu lan la ñu def ba mesure boobu daal seen kaw parce que encore une fois dàq yombul mhm. te comme ni may wax tout le temps dañu nekk si dëkku réew mhm. ku ñu dàq nga jàpp ne dëkku yoon mhm. ku ñu dàq nga defe ne nga jàpp ne li ñu dàqee jaarul ci yoon mais dama ci yoon dëgg ba feeñ d'accord euh, euh, bu ñu jógee ci ñoom seen dàq ñu ñëw sama yow ci sa dàq yow nga mm. porte plainte Sidi mm. pour licenciement abusif waaw nga gagné procès ba. Mm. ñu fay la ay million waaw ak li la Sidi jàngalee ndax jaroon na ko. waaw xam nga euh, bijou dama la wax ne léegi sa dégg nga léegi ma nii ñii ne euh, dañu euh, Aïssatou moo leen. dàq mhm. wax naa la ne bu loolu amoon dañu waroon porter plainte. Mhm. pour licenciement abusif. Mhm. xam nga amul. man sénégalais yu bëri xamuñu sax ne man mus naa jaar ak Sidi foofu ñu bëri xamuñu ko. xam man kenn mësuma dégg te kenn du ma dégg ba keroog may sàngoo suuf. parce que ñu bari dañ jàppoon ni que yow da ngaa démissionné. voilà waaw moom wax dama moo tax ma la xam nga loolu mooy chaque fois man lépp lu may wax am fu mu tegu man damay wax lu toog ci chaise. Mhm. su ma nee man femme d'état laa waxin la déggin la laaj. d'accord dama ko imposer sama bopp. Mhm. Sidy Lamine Niass ñu bari xamuñu ne jaar naa ak moom foofu. te awma ci benn honte ndax ba mu euh, génnee àddina dem naa ci laa fay doog a delluwaat côté ba sunu ma fa jaar man. te euh, euh, ay ay ay njabootoom daf ma honneur ndax xam nañu li ma sekkal seen papa si Lamine euh, ba ñu ba ñu paree ci loolu dañuy déggante tout le temps di mhm. SMS parce que xol li ci juutu moo ci mujj. Mhm. Sidi loolu c'était Sidi Lamine ñas la patron. Mhm. ak Aïssatou Diop Fall l'employé. bokkul nag ak Sidi Lamine Niass papa ji ak Aïssatou Diop Fall doom bi parce que loolu ad vitam aeternam la ma jàpp ndax man wax naa la xeexkat laa loolu loolu la yàlla dogal ci ma mënu ma ci dara. man xanaa ma toog nii ne du lekk avance biir daf may neex ma bàyyi combat mais lu su ma décidé ne non avance bi dama koy lekk damay sëgg bëri lu ma jaral mu jaral ma ko j'ai estimé que j'ai été licenciée abusivement mais ma jël samay dossier dama yóbbu ko ci yoon ñu dem nga gagné may may gagné mu def ay recours def recours ba ñeme ba xam ne jeex na te j'en profite pour nuyu gërëm sama avocat maître Abdou Dialy kan mooy avocat wu conseil kooku sama sama lépp la ndeysaan ci euh, moom boole woon ak moom sama beneen papa benn baas Diagne moom boole euh, woon ak moom muy jàppale ba maa ngi woon France sax moo moo li jënd yëpp yëpp sotti te bal tàkkul géej gi dafaru kenn musuma dégg te kenn du ma dégg en privé wala en public may wax lu ñaaw wal fajiri waxuma la ak Sidy Lamine Niass mhm. parce que man lépp lu ma doon ci àddina bu weesoo sama ndey ak sama waay ak ak sama papa mhm. ak yàlla yonenteem bi Sidy Lamine Niass la te man duma gërëm ba fay di xar bu rus naa ko gor laa mhm. te si la man def na ma loo xam ne léegi nii nga xam ne nekkutu fi ci laa koy doog a ressenti ñaata million nga yu bari la la li la biis wax est-ce que hmm. ja lim la li nga expliqué ne jàngal na loo ko lim la xamal waaw mais da déggoo est-ce que ma expliqué dama la ne hmm. Sidy Lamine Niass hmm. c'était pas institut personne c'était pas la personne de Sidy Lamine laa ko defee c'était l'entreprise Walfadjri d'accord nga porté woon plainte. l'employé Aïssatou Diop Fall. Euh, euh, dama jàpp ne loolu man su ma jàppee ne maa ngi samay droit rek damay dem lu ma am jël. parce que nga tey jii Aïssatou mhm. da nga amoon ay papa. nga am papa boo xamante ne. Mhm. wax dëgg yàlla utal na la boole na la ak avocat nga dem avocat bi. Mhm. nga gagné sa procès waaye amoon nga it ay papa yoo xamante ne. Euh, jéem réconcilier nañ la. ak ak ki nga xamante ne moom mooy. Sidi mooy Sidi. cër ñu si Sidi. non ñaan njëkk quoi. non non non non au contraire. Mm. Sidy ngi si njëggal yàlla. Mm. Euh, Sidy Lamine Niass man ak moom lu incroyable la kenn jubóolewuñu kenn deful ku ko def na yëkkati loxoom wax man xam nga duma wax waa defu ba ne am naa ko ñëpp Sénégalais yi xam nañ ma. Mm. duma wax lu amul doom naa ko. te lu ma def dama koy assumer. Mm-hmm. si Lamine Niass ñoo xuloo suñu xuloo kenn xamul ba léegi nii te kenn du ko xam. Mm-hmm. benn nit moo xam defe naa liñ jote mi ngi foofu ba tey mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi wal mm-hmm. waaye man duma ko wax moom Sidi du ko wax. te yow sans regarder personne. liñ jotee ba euh, loolu am man de bu ko bu Sidi Lamine Niass yeewaatul wax ko Aïssatou Diop du ko wax. Euh, kenn jubu ñoo ñoo xuloo suñu xuloo between ñu juboo suñu juboo between us te juboole bi lu simple la man mii ba lépp jàllee bi nga ko bi bi nga jëlee ay millions ba pare si la meñes moom ak millions ya tamit amul mag waaye yow yaa mag ay millions waaw loolu am na loolu yàlla dogal na ko waaye ndax man ay combat de principe laay mën man lépp nooy mën ne combat de principe la parce man dërëm ak yow daal ay satu nee nga yow doo jël ndaare waaw mais loolu choix la xam nga bijou dans la vie mais da ngay tànn nekk ci place bu baax bi wala nga nekk ci place bu bon bi. Mhm. yow pourquoi tànnoo nekk toog fii di seetaan télé. du ma téléspectateur waaw jërëjëf merci beaucoup man du ma followers man. <laughs> moo yi xaw ma ci dara affaire internet yi dama lijjanti wu ko man. man leader laa. léegi bi ngay dem ba di ko baax bi seen ci yow la. jubóo waaw euh, Sidi defar ma fleur. ndax moo ma jàngal xeex. Mhm. moo tax Sidi il est fier de moi. <laughs> moo ma jàngal xeex te mëkkuma ko. bañ demee ba nga xam ne am na amoon na beneen recours bu mënoon a def mais mu def bal à <laughs> man si saa si la ma fay cash te ay millions yu bari ba gëmuma ne fii Sénégal su ma juumalee bu ma waxoon ay bêtises mais je pense pas que li ma Sidi Lamine Niass fay man. que am na employé bu yóbbu patron de presse Sénégal fii mu fay ko li ñu toll. je pense que su ma juumalee Madiambal Diagne dong ma am loolu te boobu du woon du woon ay emploi ay presse nii. Mhm. kon yow Sidi fay na la ay millions millions may. fay na ma ay millions. yow yaa may ma Walfadjri fu mu daanoo. daanu ma. <laughs> Bijou takkal ay lunettes. lu tax doo dellu Walfadjri yow kon. waaye dama déggoo ma man man presse bi léegi ma bàyyi presse xanaa déggoo ma yow man damaa dem yow déggoo ma la ma leader laa. te yow ba ngay jugee jógee Walfadjri yow. Hmm. lu tax opté woo ñëw ay 2 ay RTS e ay feneen. non mais man 2S bii. man buggoon naa fi ñëw ah. El moom xam nga ne moom. Euh, bu produit mais après bu dee produit eh, Sidi Lamine nga El Hadj gaw ma mu. jënd non eh, moom eh, xanaa dana préféré. jubóole la ak Sidi moom gaw ma ne dina la kii de. tonton El Hadj est-ce que du woote ba.